Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ah kese Sénégal kese Sénégal kese Sénégal kese Sénégal kese ah. Sénégal kese bu wóor la moom rek kese yaakaar ci ñoom bëgg réew ba tax ñu teew kon nañ leen wóolu jox leen suñu carte kese bukki bu solee deru buy bu la naqee yow la neex Thierno Alassane Sall de République des valeurs L'homme qui incarne la vérité, qui garde ses valeurs. Quand tu parles, tu sauras que c'est l'expérience qui parle. Il est le bon, car c'est pour le bon qu'il parle. Abdoul Mbaye, ACT pour ma partie. ngor moo tax mu teew defar réew maa tax mu teew yaakaar bu tas la ñu dëkkee li ñu diggoon ji suñu ko suñu kàttu nañ ko jox Sénégal kese moom lañu wóolu Sénégal kese suñu réew bëgg réew ba tax ma ne suñu réew nañu ràññee bukki xaj ak fas ak mbaam bëy xar bu ñu sàndi suñuy kàttu nañu voteel Sénégal kese senegal kese mooy bu wóor bi nañ ko ràññee Sénégal kese Sénégal kese Sénégal kese kese Sénégal kese Sénégal kese Sénégal kese Sénégal kese ah. kese kese Sénégal kese kese kese ma ne Sénégal. jiital ci nuyoo bi euh, le président Thierno Alassane Sall ak le président Abdoul Mbaye euh, di nuyu aussi euh, madame Aïssa Sall madame Wane nga xam ne ñun mooy suñu responsable fii. au niveau de la commune de Joal muy responsable République des valeurs ah ñuy nuyu aussi notre investi notre camarade alfa Aw mi toog Alpha Alpha Aw di ko sant di ko gërëm di wax ni tey daje bii bu amee ah, defe naa yàlla ak moom la ndax nag ku gis lii fi daje tey ak heure bu tardive bi nga gis ni ñu toog nii boobu ci quinze heures ba tey ñu toog di xaar nga xam ni euh, alfa ñor na leen waaye République des valeurs ñor na leen waaye Sénégal kese ñor na leen donc may wax jigéen ñi ñu ngi leen di sant di leen wax ngeen tàccu seen bopp waaw tàccu leen seen bopp ndax nag defe naa dooley jën ndox te tey jii defe naa ku ne wax napp te ku ne napp xam ni activité bi lu ci ëpp xëy na góor ñi ñooy dem géej mais lu ëpp ci activité commerciale bi jigéen ñi ñoo koy def donc coono bi nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy daj fii ci Joal Fadiouth ci mbirum napp geeg yooyu ñëpp xam nañ ko te defe naa nag ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekk muy waa Pastef defe naa avant ñuy ñëw ci pouvoir bi lu ne digoon nañ ko sénégalais yi lu ne diggoon nañ ko sénégalais yi waaye biñ fi toogee léegi huit mois yi defe naa yaakaar mi ngi bëgg a tas waaw ndax nag ñoom nee woon nañ géej gi bis buñ ñëwee nit ñi danañ jàpp jën ba di gis duñ dañ koy maye dootuñu ko gis sax kuñ ko jaay te loolu yëpp amatul réew mi dafa gën a metti problème yi dafa gën a bari prix yi yokku na coono yi gën naa bari donc nag ñu jëm ci ay élection législative yoo xamante ni élection yu ama am solo la ndax élection yooyu mooy tax ñu am député yoo xam ne bu ñu demee toogal fa réew mi lépp luy askan luy soxla lépp luy problème réew mi danañ toog mën koo défendre waaye bu ñu bàyyee tey ba nga xamante ni ñii fi nekk jox nañ leen majorité nga xamante ni ñooy nekk buur nekk buum mi defe naa su yaboo ku yabu jël say bagaas génn réew mi ndax nag waneeguñ fi dara lu leer ñoom waxoon nañ am nañ ay solution bañ fi ñëwee ba tey réew mi daa gën a métti ñu wóolu ñi nga xamante ni mooy ñii toog ñu ñoo xamante ni dafa naa kenn dootu leen présenté ci Sénégal kenn dootu leen présenté ci Afrique ndax seen liggéey bu rafet ak seen dëggu ak seen constance ak seen cohérence ndax ñun loolu lañuy ñuy ànd ak nit koo xamante ni tey loo ñu wax tey bu subaa nga génn ci ñun duñu ànd ak yow waaye Thierno Alassane Sall ku ko xam xam ni waxu démbam mooy waxu tayam keroog bi ñu demee ci dakaar ci contrat de législature bi ñu dem ba ci moom ne ko président kat ñun dañoo bëggoon euh, campagne bi lu mu xat-xat nga ñëw Joal parce que waa Joal bëgg nañ laa gis dañuy ne incha allah danaa ñëw bam ñu ko waxee lañu wóor ni noonu mu ko waxee noonu la koy defee donc sagal nga ñu ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk République de valeurs donc ñu di la remercier di la sant di la wan ni ñun ciment la ñu benn yoon la ñuy tooy. te fii nga teg sa tànk tànk tegguwoo ko fa ñun duñ la bàyyi parce que nag dëgg la ànd ak nit gëm-gëm la ñuy ànd ak nit pas-pas la ñuy ànd ak nit te defe naa Sénégal loolu moo fi manqué dem nañ ba léegi kenn bëggul de kenn bëggatul a def politique ndax intérêt rek moo tax nit ñi di ànd da gis ñoo xamante ni tey dañ démb ñoo doon taxaw di sànnante xeer di tojante bopp di waxante lu bon tey nga gisaa leen ñu ànd te dara taxul lu dul seen intérêt personnel te loolu nag ay pratique loo xam dañ ko war a xeex te ñun ci loolu lañ nekk te tey ji ki ñi incarné loolu mooy waa Sénégal kese mooy waa République des valeurs donc ñu xam ne ñun waa commune de Joal Fadiouth ñun ñi nga xamante ni ñoo fi toogal République des valeurs ci loolu lañuy nekk ci loolu la ñuy xëy ci loolu la ñuy gont wutuñu ci kuñ ci jox xaalis wutuñu ci kuñ ci jox position wutuñu ci dara nuyu suñu président yi nga xamante ni suñ toogoon ba fajar ñu ñëw dinañ leen fi xaar ndax saada jaral nañu ko ndax ñun nii saada suñu woowee dañuy ñëw yéen alpha aaw ngeen xam mais ñun saala aaw lañ ko wax sama baat bi dafa dee ndax seen quinze heures ba tey ñu ngi fi sonn nañ ndax yéen te jaral nañu ko li tax ñu toog fii nag du dara de saala daf ñu xamal ni ñu soo leen ñëwee di ngeen fi génnee corruption di ngeen jàppale jeunesse bi soo leen toogee assemblée li ñu bëgg ñun dinañ ko am ñun ñii nga xamante ne ay liggéeykat lañ bëgg ku ñu jàppale te gisuñu ku ñu jàppale loolu dong moo waral ñu toog fii ndax dañoo sonn si naxkat yi ndax nañ ñu guddi ndax ñu bëccëg amba nax yi nañ jóge si nax yi ànd ak Sénégal kese defal Sénégal loolu lañ bëgg te loolu lañ am la bëgg ngeen defal ñu ko ñun bu dee Joal kese jàppalee ni Sénégal Joal fii yéen a ko moom jigéenu Potofeer yëpp yéen lañ àndal dinañ leen jàppale à travers Sada ñu dem assemblée di voté ci loi comme ñëpp mbëkk mi jóge fi amatuñu càmmiñ amatuñu rakk amatuñu mag suñu mag yi dem nañ suñu rakk yi dem nañ loolu yëpp dañoo bëgg mu jeex fi xol laay waxee loolu ndax dafa mitti mitti na torop saada mii nii bu nekkee ni egg na assemblée incha allah te yal nañu ko suñu borom defal mu toog assemblée ñun suñu xel dina dal suñu xel dina dal ndax mu ngi jàppale mool yi nekk ci dëkk bi mool bu ko wax ak bu ko waxu saana loxoom mu ngi si yaw mu ngi ku ñu jàppale sa jëkkër nday faatu jàppale nañ sa doom jàppale nañ la dama koy gàttal rek ndax temps bi daa xat nañ leen jàppale saada assemblée incha allah auzu billahi mina seytaani rajim di wax bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw biñ sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi gërëm suñuy wayjur gërëm mbooloo mi fi toog yëpp di masaw ñi nga xam ne boobu ba léegi depuis dix-huit heures ba léegi ñu ngi fi toog di xaar président Thierno Alassane Sall ak président Abdoul mbay kon yéen ñi nga xam ne boobu ba léegi yéen a ngi fi toog ñu ngi leen di massaw bu ñu amoon lu ñu gënal président Thierno ak président abdul dañuy teel a ñëw bu ñu teeloon a ñëw mbooloo mi yaakaar naa fii am na moment boo xam ne ay booru 18 foo sànnu mba foo sànni mbattu mu takk waaw beneen bi mooy avant may dugg ci biir waxtaan bi mooy damay remercier équipe bi ma àndal à travers di ci jiital madame Won ak ñi nga xam ne ñoom Ablaye monsieur Diakiti ak Maodo malik ak Mohamed ak ñoom Ndeela ak ñi topp seen ginnaaw yépp di nuyuwaat waa population Joal Fadiouth di jiital nuyoo bi ñi nga xam ne ñoom ñooy sama waa koñ di potofeer ñi nga xam ne ñooy samay jigéen samay rak samay mag samay yaay samay papa samay ndijaay kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen masaw bu ma jógee foofu imaam maa ngi lay nuyu bu baax di wax ne kàddu yi rafet na kàddu yi am na solo di dalal président Thierno ak président Abdoul dina wax ne bisimilah dal leen ak jàmm si biir Joal Fadiouth dina wax ne ñëw ñëw ngeen seen dëkk ñëw ngeen dëkk cosaan ñëw ngeen dëkk culture ñëw ngeen dëkk napp parce que wax Joal wax dëkk napp kon ñëw ngeen seen dëkk ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw bu loolu weesoo may sant ñi nga xam ne ni ñooy samay collègue mooy ñu taxaw nale muy sama waa ASC ASC jamono leen wax ne gis naa taxawaay bi bu neexee dañuy ànd bu naxaree dañuy ànd te loolu mooy ànd nawle ma ñëw nag si ñi nga xam ne mooy ñaari leader yi toog te ñu yàgg a liggéeyal Sénégal muy président Thierno ak président Abdoul mbay gis nga ànd li si gën a am solo mooy ànd ngor ànd nawle parce que alalu àdduna ak intérêt personnel yëpp fi lañ koy bàyyi am na ñuy topp si ginnaaw nit di ànd ak ñoom di leen liggéeyal te buñ leen soxlaa duñ leen mën a gis te ñu ngi daw si ñoom safa ak marwa kon booy ànd ak ay leader ñu jékki ñu ne dañu bëgg a ñëw Joal seet si leen xool ni ngeen toogee xool seen njaboot kon président les deux présidents ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne seen taxawaay rafet na waa comme ni ko ñëpp waxee rek am na loo xam ne imaam wax na ko jarul ma si jaaraat am na loo xam ne monsieur Diakhaté wax na ko du ma si jaaraat mais côté bi nga xam ne nii muy wàllu napp mën naa si sori parce que kuy wax Joal xam ne dëkku napp la te actuellement fii ma taxaw di wax nii li nga xam ne coordinateur CLPA bu Joal Fadiouth sama loxo lañ ko teg kon napp war naa si mën a wax lu bëri tey ku xam Joal xam ni mu meloon yéen gis ngeen pêcheurs yi tout le temps ñu ngi si réseaux sociaux yi di kaas di métitlu di wax te boo xoolee tey immigration irrégulière bi nekk fii nii tey boo xoolee dafa laal secteur yëpp dañu jàpp ne mool yi la laal mais laalul mool yi kese capitaine yi pêcheurs yi ñooy yóbbu gaal yi mais boo xoolee ñuy dugg ci gaal gi am na béykat am na sàmmkat am na tailleur am na menuisier corps de métier ñu ngi ci biir kon fépp la laal tey bu fekkee da nga yor sa atelier yor say apprenti di liggéey ab benn pêcheur ñëw tëgg gaal yóbbu say apprenti kon daanaka yow sa atelier dafay tëj dem si commerçant bi noonu dem si keneen noonu dem si keneen noonu kon fac secteur bi yëpp lay laal kon comme ni ko ñëpp waxee rek bu yàlla dogalee si kàttanam ak mbaaxam ñu ngi leen di tàllal loxo leen wax la ngeen jàppale ñu jàppale Sénégal kese ba le 17 ñu bañ ko jël teg ko si ay làmmiñ teg ko si ay wax teg ko si ay wane poster kese ku am fu lay toog ba heure bii da ngay am fu lay jël sa carte am fu lay boo xëyee dem voté ji toog xaar résultat di ñaan yàlla li gën si ñun mu defal ñu ko loolu la ñuy ñaan vraiment kontaan nañ si yéen population Joal Fadiouth dafa guddi moo tax mënuñu téye temps bi bëri sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen di ñaan yàlla di wax ne ànd bi ñuy ànd yal na si yal nañ yàlla lafal cat jigéen ñi booloo bi ngeen booloo yal na leen yàlla suturaal jàppale leen may leen njaboot gu barke jërë ngeen.